seeti leneen lu ma def mhm. pour ma mën a dimbali samay waajur mhm. ak ki ma yar mhm. bi nga jógee ci ambulant bi euh, ci nga dem marché di jaay ay plate di jaay ay bool yaa ngi koy wax léegi euh, processus boobu comment ça s'est passé waaw bi ma bi ma ñëwee dama doon jaay palaat njaay géwal laa doon jaay di lal ko ci palaat après njaayu géwal may jaay ay dàll après jóge ci dàll dàll bariwul bénéfice ma daal dem ci maquillage te dama daan posaale en même temps ma sonnoon nag nekk ci marché bi bu baax a baax mm-hmm. sonn mm-hmm. nit ñi daal tabaski sax mbaa ñuy korite musuma sol yére ci mm-hmm. marché bi laa doon nekk tout le temps euh, ci marché bi nga doon nekk lu lu lu metti la yaa ngi koy wax léegi parce que à chaque fois dañuy gis ci say vidéo da ngay wax ni fi ma jaar fi ma jaar fi ma jaar fi ma jaar mais fondamentalement aujourd'hui euh, euh, boo koy fàttaliku lan la lay def waaw su ma koy fàttaliku léeg nag sama xol day tooy parce que man su may fàttaliku du ma toog ci biir nit di ko wane tout le temps. Mhm. mais comme bu ma wéetee damay xool fi ma jaar ak fi mu ak léegi ni mu neexee. Mhm. dama naan yàlla rek mooy buur ma bëgg xam ne àdduna jeexagul képp ku fu jaar fu metti mhm. nga toog nga xaar. xam ni yàlla jeexul. parce que bu dee man tout le dama koy wax bu dee man maa jeex la ñëpp ay jeex la ci àdduna. boobu fekk na yaa ngi sëy wala. waa boobu fekk na njëkkoon naa am jëkkër. mu divorcé. Mm-hmm. amaat jëkkër. Mm-hmm. qu'est-ce qui n'a pas marché ci premier mm-hmm. mariage bi. waaw dara amoon naa goro yu baax njëkk yu baax mais yàlla mooy tudd rek sëy ak tas te ki ma tasal tamit nit ku baax la ba tey damay déggante dañuy waxtaan dañuy def lépp dañuy kaf dañuy reetaan. parce que àdduna amul solo. nit doo tas moom rek mu doon sa noonu non aujourd'hui bu ñu taxawee ci euh, ci li nga nekk léegi mu di jaayum euh, xeesal bu ñu ko mën a woowee noonu encore une fois on n'est pas en train de faire le procès de euh, ñiy jaay xeesal mais aussi c'est une manière de sensibiliser ñi nga xamante ni ñoom ñooñu ñuy seetaan xam ni baaxul ñëpp xam nañ ni xeesal baaxul mais aujourd'hui ah ngeen xam ni xeesal baaxul nga koy jaay comment est day d'ailleurs l'idée de vendre xeesal si on sait que ci palaat nga jógee maquillage ak yeneen yu ni waaw loolu dëgg la xeesal baaxul mais ñun Sénégal bu ñu dindee li fi baax dara dootu fi des. Mm. parce que li fi bon bari na lool te ñu ngi koy def kon xeesal suñu bëgg-bëgg la ak lii nga xam ne ñun moom la ñu choisir di ko def mais xeesal dafa bon mais boo ko diwoo ci normalement am na foo xam ne du la gaañ du la agressé mais xam nga lan moo bon ngay xeesal ba pare di diwoo loo xam ne après daf lay gaañ loolu moo bon ci xeesal. pourquoi nga choisir jaay xeesal. te nga xam li ci nekk yépp euh, beneen bi mooy euh, lan moo waral nga bëgg a jàpp ne Sénégal yow rek yaa war a jaay keneen warul jaay. noo jàpp ma ne Sénégal. lan moo tax da ngay sama question bu njëkk bu ko defee ñu mën a évoluer lan moo tax nga choisir jaay xeesal si on sait jaay nga yeneen yu bari tout en sachant li ñuy wax yépp ci xeesal ne baaxul. Mm-hmm. waa soo gisee li tax ma bëgg jaay xeesal nit ñee ma ci poussé. Mhm. parce que comme émission bu ma dem dama koy wax. Mhm. dama nekk ak benn ñag ñu bokkoon benn salon góor la da daan xeesal ba weex moo ma jàngal lu ñuy defaree xeesal parce que dañ daan nekk man ak moom ñoo daan létt suñu léttee. moom day weex te man duma weex te maa ngi diw lu nekk maa ngi koy diwoo ay type mënu ma xees mm-hmm. léegi ma laaj ko benn jour mu ne ma damaa bëgg nga jàppale ma su ma paree ma jox la benn kado ma ne ko cadeau bi lan la mu pare ma jàppale ko pare mu ne ma jëndal lii ak jëndal lii jëndal lii ma jënd ko mu ne ma sa yaram dafa am peau morte peau morte boo ko amee boo xeesalee fii ba 10 ans doo xees mm-hmm. parce que loo diw peau morte bi moo koy naan ma ne ko ah mu ne ma dangay ngay piling sa yaram ma piling sama yaram mu defaraatal ma diw wan ma nuñ koy defaree ma def ko diw weex tàll ma nit ñi di ma pousser maam Ndiaye li ngay diwoo maam Ndiaye li ngay diwoo ma leen koy defaral ñu may may ay 2000 di ma may ay 3000 mujj gi am ku ma ko daan defaral muy dem di ko jaayi ma ne man pour pourquoi pas kii di dund ci sama ñaq te man lii man maa koy liggéey te ma war ci mën a dëggal sama bopp. Hmm. ci laa dëggale sama bopp nit ñi pousser ma ci nag de trop. parce que hmm. fu ma nekkaan nañ ma fa daan fekk. Mm-hmm. su may dem xew dañ ma naan defaral ma ba pare mm-hmm. tabaski bu jotee wala korite buntu palaasu ajaaloo damay dem ci aji daaro tout le temps naan ko aji daaro jaay ma li jaay ma lii jaayam nit ñi raamal may defar di defar léegi may defar xeesal di ko jox nit ñi ñu di ko diwoo mm-hmm. te ñu may may ay 2000 léeg-léeg ma defaral nit mu dem jaay ko lu ëpp loolu man mi ko defar du ma ci am dara ko man mënuma dëggal sama bopp loolu moom mu dugal ci xeesal mu dugal la ci ngay jaay yaa ngi jaay li ngay jaay ñii ne nañ baax nañ ñii nee nañ eh, baaxul mais aux yeux de la société et surtout euh, ci euh, fii ci Sénégal dañu ko fi tere bëggatuñu ko euh, mais néanmoins yaa ngi ci TikTok bi maam ngi wax lu bëri nag. Mm. di di di laale ak jaaykatu xeesal yeneen yi bu tey ñu ne nga wax leen baatu fête Fouta 10 soit nga leen baatu école 30 les gens ne comprennent pas lan mooy sa problème ak yeneen jaaykat yi. waa xam nga Sénégal tekki fi dafa metti te fii ku jiitu ñu jéem laa kar. wala ñu jéem laa gor say tànk ñoom dañuy jaay diw ma dem ba ëpp leen bës bi ci jaay diw hmm. léegi ñoom su may live li waral ma leen naan va te école dix va te faire école cinq parce que damay live ñoom dañuy jël seeni employé mu leer la nit ñi ñoom ñoo kompaloo ku dugg wax keneen ki day dugg wax kenn ki day dugg wax léegi nag su ma lay bloqué dama naan la sa dernier moom Mm-hmm. sa dernier moo ci Afrique sa dernier mot ci dund gi va te seex say école de mm-hmm. parce que chaque jour tout le temps bu yàlla sàkk dañ lay provoqué. Mm-hmm. yow léeg-léeg da ngay gis sax nit ku génne di jaay diw war a yam ci diw wi muy jaay day wax baat boo xam ne yow da leer ni baat bi yow yaa ko moom comme affaire rivaliser rek. léegi nag bu ko defee ma damay fëgg sama dënn sama càkk yëngu ma wax goro moo. ko waxee xale yi gis ko. daal di koy jël di ko collage di wax n'importe qui. Mhm. Mhm. mais lan jotee parce que xam nga ay nit duñu tëb tëb rek tamit euh, di waxante yu metti ci réseaux sociaux yi te amul lu ngeen jotee maa ngi ciy dégg coowal lotion coowal peeling c'est c'est quoi le problème à la base. waaw parce que ñoom dañoo nekkoon ci réew mi. di xeesal nit chaque jour lu histoire ak moom parce que da jaay nit jiw xooloo powam te nit boo koy jaay jiw da nga war a xool powam xool ban po la da ko naan da nga xees wala da ngaa ñuul ndax gaaw nga xees wala gaawoo xees bu fekkee daf la ne damay diw ba sonte du ma xees kooku dafa am peau morte léegi massage pilin bi defar ko xale yi di dindi peau morte bi ñu ne peeling bi ga baaxul léegi am ñu si ñoo xam ñoom ñu ngi samp di defar peeling jël sama tuuru peeling di ko wax naan bi ñun ñoo ko defar ak peeling bi te ñoom xamuñu base peeling gis nga lii may wax dama ko xam te ku weddi li may wax nga tàppe ko tubaab yi dañuy piling piling boo boo ko déggee muy pour peau morte peau morte looloo tax ñu naan pilin nit balaa ngaa diw dangaa wala piling sa yaram ba sa peau bi ubbeeku nga doog a xeesal boo diwoo loo diwu rafet loo diwu mu xees mm-hmm. mais ñoom mënuñu piling man may piling ñu gis nit ñi seen yaram bi ni muy xëbee ñoom ñu taxaw affaire bi jaaxale ñu dem jambi ji lu ne nag dem nañu jamb saabu dem nañu lu nekk xamuñu léegi nag ñi ci des ñoom dem jëli lotion. Hmm. mos nga utiliser lotion. lotion boo ko ubbee gis nga ko day naaw ci kaw parce que xam nga ni lotion baaxul dissolvant la. lotion man dama koy utiliser mais xam nga nu ma koy utiliser damay teg ay paanu crème épieux soo ko defaree ba pare nga daal di dajj ay lotion sotti ko ci nga xam day doon effaceur. mooy dindi kéntoo yi day doon effaceur mais pas nga jël ay lotion jàmb ci ak kenn xamul lu mu doon nga jël ko di ko def ci tànk nit tànk nit ki fut ma toog ñu envoyé ma ay tànk yu fut am sama benn cliente bu may live mu woo ma di jooy ma ne ko lan ngay jooy mu ne ma dafa am lotion bu ma déggoon am benn jaaykatu diw bu ma ko jaay mu ne ma soo ko defee say tànk day weex yaa ngi dégg te man sama yaram xeesoon na ma dégg sama benn xarit ne ma naa ko jënd rek jënd ko soo ko jëndee sa tànk yi day weex mu dem jënd ko def ko hôpital la mujj ñu xotti ñaari tànkam yépp proviant ci sama portable léegi ci ci saa ma énervé wu nekk ci live bi di wax di wax di wax di wax ma gis nit ñi di capturé di capturé di capturé ma pare xëy dégg ku nekk génn ñoom Salif Keita ñoom Nengra ñoom Mous ñëpp génn di wax naan waaw pili kan moo kii pili nga gën a bon leçon ma ne leen da ngeen di tey néew ma leen leçon dafa bon parce que France am na leçon yoo xam ne yiy jugee ak ak yiy jugee Finlande da koy def ci sa kanam mu normalal sa kanam am na ko mais leçon bi nga xam ne kentoo la nit waru ko jël di ko def ci tànkam sans mu ménager ko ak leneen. léegi nag wax ji bari ma génn vidéo na leen maa tay maa tay ma wax ko. man maa tey moo ko léegi nag vidéo bi daf leen a laal ñu partage video yi ku nekk nag jug fëgg nam ca kam yëngu ku ne jug di classe Mame Ndiaye Savon mais bu ñuy kalaas dañuy classe ku ragal man ragaluma chaque jour dama leen koy wax samay vidéo dama leen ne lu ma sama fit bi may sama bët lu ma sama bët bi may sama fit bi duma ko xañ ku ma laay fal 5 heures heure bi ma laay fal laa lay laay fal ba bu dee 5 heures nga ma laay fal dama lay laay fal ba 5 di du parce que du ma doomu Pikine laa doomu banlieue laa dama jaar fu metti marché moo gën a metti marché zeng li muy rëy rëy fi may lal noppee nañoo tudd kenn man la ñuy tudd ba marché bi di pare kon xamuñu kiñ ko séqal mais maam est-ce que euh, li nga wax yëpp dëgg la déglu naa la am naa téléspectateurs yi ñi lay suivre en tout cas dinañu juger de par eux-mêmes mais li ma jaaxal mooy euh, yàgg nañ dégg nag quand même ngay tendance yeneen jaaykat yi di leen gaaral parce que man personnellement seetaan naa benn vidéo boo boo leen di laajee ndax jaay nañ <laughs> lu tax nga leen di amee la Mm. parce que ba coow li amee dañu foogoon ne dañ may yàqal gis nga yàlla bu ne waaw ku ne déet da ngay sonn te yàlla moo ne waaw te sama sëriñ bi naa nekk ci kanam mm. ak ci ginnaaw muy Alaaji Fàllu Mbàkke te mm. yàlla moo ne waaw ba pare ku ne déet da ngay sonn léegi coowul lesion bi jug na am na si jaaykatu diw yoo xam dañuy vidéo di jooy am ñoo xam dañuy wax n'importe kii am ñoo xam ne daa dem ba jaral leen ñu génn ay diplôme mm-hmm. am ñoo xam dañoo dem ba mu jaral leen ñu génn ay diplôme nee nañ ay diplôme arabe ay di araab am na xeesal kenn xamul yàlla rek moo xam ñun li ñuy def daganul diplôme arabe pour lan ku ne mu jaral la nga dem wuti ci say kayit yoo xam ne mais au moins vous êtes conscient que li ngeen di def daganul baaxul bu ñu ko mën a baaxul ci santé c'est une question de santé publique d'accord ngeen non dama la da nga wax loolu dama la laaj rek ndax d'accord nga ni question de santé la non non du ma d'accord du ma d'accord si nag maam il faut non non xam nga lu tax bu fekkee da nga xeesal baaxul da nga koy wax ñi diwoolu bon mhm. mais ki xam li muy composé mhm. xam li muy defar kooku du nangu ni xeesal dafa bon mhm. peut-être ñeneen ñi mën nañ ko nangu mais man du ma ko nangu parce que man bi ma dalee xeesal dix-huit ans quinze ans dafa yàgg te sama yaram doo ci gis végéture bu la neexee ma si mee ko wan sama yaram doo ci gis végéture te damay diwu vingt 24 heures nii nii nii sax la pose sama diw parce que dama xeesoon tellement que ba sama jëkkër da doon wax chaque jour chaque jour ma xaw wàññi sama sama sama sama loxo. Mm-hmm. mais man mënuma comprendre dañ ne xeesal dafa bon ci kaw ngay diwoo li nga xam ni day agressé peau bi. mais jaay ngeen bi laa bëgg pourquoi nga leen di laaj ndax jaay ngeen wala da nga jàpp bi yow kese yaa nekk di jaay. parce que damay xolloo woon ak ñoom. ma histoire ak ñoom bës bi gën a jóg sama place xale yi di rang. pour jënd. xale yi di rang sees yi day fees si biir ñoom ñu taxaw macha allah am ñoo xam ne dañuy jóge fu nekk di ñëw di jënd. Mm-hmm. affaire bi def ma kaa moo tax may taxaw su ma laay fee léeg-léeg su ma gisee benn mère bu lax génn wax ci samay produit waaw ñun faale wuñ benn xale xaw ma qu'est-ce qui se léegi man il faut ma kokkali leen parce que man damaa mën a kokkali man dama lay topp di la kokkali yow ngay jooy man ma lay kokkali mm. manaa leen mbaa jaay ngeen léegi su ma nee mbaa jaay ngeen dangay ngay benn meer bu lax génn naan ñu ngi jaay ñu ngi sant yàlla mm. kon yéen seen yoon lu de parce que <laughs> tonton Omar man xam naa ne Bettina mi ngi jaay euh, Chika bi mi ngi jaay House of Chiki euh, Antis mi ngi jaay Antis Babel Ndoye Eh, yow yaa ngi jaay mhm, nga ya ñu ngi jaay léegi luy problème bi est-ce que du ngeen yéenante jàmm rek yéen ñëpp ngeen jaay ku nekk jël wërsëgam parce que nag bu yàggee quand même est-ce que du nit ñi du ñu sonn euh, carrément ci yéen mu nekk euh, benn euh, saturation surtout ci TikTok bi parce que kenn mënatul def dara fu ñu ubbi yow la ñuy gis maam surtout yow nga ni fëgg nga sa dënn wax nga darab ak njege njegenaay nga ni euh, sa caq yëngatu euh, va te faire école dis mooy lan maam waaw man moom c'est que samay parole dafa garaaw mm-hmm. parce que man li may wax sax su ma paree su ma toogee ak sama jëkkër dafa ma naan ndax lii yow yaa ko wax waxaat ko mënuma ko wax mm-hmm. man samay rab dafa bëgg caméra mm-hmm. ak làmp yu tàkk nii nii comme ni ñuy def nii daal comme làmp yi tàqee nii ma waree mën naa ko goromoo mm-hmm. fëgg sama dënn sama caq yëngu ma jël jaaykatu diw yëpp waata seex say école dix dama leen di tëj école dix kenn du jaay mais école dix lan ak vaata seex say école école day am xale yoo xam ni dañ leen di yabal ñu dugg sama live di wax n'importe quoi li ngay jaay baaxul mu leer la nit ñi xamuñu sax sa bëkkit fu mu nekk ma ne la série ba nga ne ma ah ma ne la sa dernier mot ci ci sa vie sa life sa dernier mot ci euh, vie wu Mame Ndiaye Savon mm-hmm. waxal sa dernière kàddu te nga tàgg te nga may seen waa kër dédicace ndax à tout moment dangay dem école 10 va te sax sa école 10. léegi bu ko defee xale yi ñoom il faut ñu gaañu ci école 10 parce que am na jaaykatu diw boo xam ne ma bu ma génnee ne jaayoo day vidéo jooy. Mm. moom daa jooy jooy ba vie yàqu. Mm. Mm-hmm. waroon nga ko invité. moom daa jooy ba fii moom yàq loolu la la noo bëgguma tuddu turam mais loo jotee gaayam exactement bu ñu mënee ñëw directement parce que moom dinañ ko fi dalal ndax dama bëgg daal vraiment euh, jaaykatu diw yi may nit ñi jàmm nag euh, du ma ne kenn sax parce que am na ñuy jaay noppi mais yéen ñiy expliquer il faut que euh, ngeen ngeen ngeen yërëm ñu ñun askan wi tuuti lan nga jote ak gaaya maam jotewuma ak ñoom dara gaaya laa wax e, e, e, gaaya la cité directement xam naa dinaa ko woo dinaa ko invité mais lan ngeen jote comme yow laa toogal tey. jotewuñu dara. léegi luy seen problème. problème bi mooy. lession Péline. damaa génne lotion. moom mu ne Péline. moo moom mu génn ne lotion tontu xale yi capturé ko mu tax xam nga xale yi danoo garaaw. Mm-hmm. booy live à tout moment iPhone la xale yëpp yor. Mm-hmm. ñu ngi wàcce. di enregistré bu ko defee soo paree dañuy jël yow comme li nga waxoon takkale ko dugal léegi yow bu fekkee da ngaa gàtt xel dangay tontu. Mm. te man lu bari bari bari bari bari ñoom dinaa leen rey ndax xam nga lu tax man tout le temps dama leen di kukkali te li may wax déranger wu ma egguma fu ne temps ñoom ñëpp dañoo mën a defar diw dañoo mën a defar diw de mais xam nga lan la ñu mënul commencement diw mooy peeling te ñoom dañoo mànkoo ni peeling baaxul fan la ñu teg ni piling baaxul tubaab dina def lu baaxul te barki allah ji fàllu mbàkke laa la giñal gis nañ sama piling bi mu nekk lotion mu nekk ndox xamuñu lan la ñu foog ni lotion la liquide la liquide bi États-Unis lay jóge peut-être tabaski bi sax dafa manqué lu ma ci am dama koy jaay léeg-léeg dafay manqué te ñoom xamuñu loolu léegi nag ñoom ñi xamul ñoo jël lotion bëgg cee def peeling te lotion baaxul pour peeling lotion man damay utiliser lotion mais pour crème mes pieds am na lotion bu ñuy def ci kanam yow léeg-léeg da gis nit ku jël lession di ko fomp ci kanam bu bàyyee xeesal doo ko xool mhm. mooy raw greffage bi kanamam day ñuul tellement que yow doo ko mën a xool mhm. léeg-léeg nga gis ku jël lotion di ko fomp ci tànkam bu paree du man a sol carax léegi man chaque jour dañ may wax naan ma maam Ndiaye Savon lotion lotion te man ma nekk ci liggéey bi ñu may wax ci liggéey bi di ma woo téléphone tout le temps naan ma maam Ndiaye lii dugg na fi génn na fi mhm. man aw ma wax ci lotion bi kon daal yéen daal seen problème su ma leen déggee daal en résumé savon lotion la ak péline loolu rek deux mots yooyu moo leen jëfale d' accord maintenant boo amoon gaaya par exemple kuy gaaya euh, njaaya njaaya euh, ndaw si rek ndaw si ngay joteel rek lotion péline moom bu toogoon fii en face de toi euh, lan nga koy doole dama koy wax hmm. dama koy kokkali daa kon maam yow bëggoo jàmm de li xale yi naan bëgg naa jàmm mais il faut ñu kokkalante mm. parce que teel a nangu day wàññi ay dóor mm. man damaa mën a defar diw loolu àdduna xam nañ ko man ñi taxaw ci internet bi naan maam Ndiaye Savon mënul defal diw ay ree lañ ma def bu ñu su leen neexee ñu seet ki gën a ñuul Sénégal ñu indil ma ko pour un mois sama kër mm-hmm. su ma ko sàjjalee bu génnee dañ naan ndax kii mën na defar diw wala mën ta defar diw mm-hmm. mais parce que yow nit bu dégg wax rek nga ne yow yaa moom wax bi da ngay tontu. Mhm. moom dong moom mooy jaay lotion jaaykatu diw bi bu la jaayee diw dañ lay jox lotion moom kenn tontu lu tax moom mu génn di tontu pourquoi pas ba pare boo tontoo mun la tontoo nga wéet di jooy pour lan. Mhm. mais euh, aujourd'hui Ndaya Beauty laa bëggoon wax tout à Ndaya ma naan gaay ma nit xaw ma lu ma dal. waaw moo tax ma wax la tonton Omar virus jaakatu euh, euh, moom tam dafay dafay doxal business am yow yaa ngi doxal sa business maa ngi koy wax léegi Bettina noonu Antis noonu keneen ak keneen noonu mais aujourd'hui yéen ñaar rek la ñuy dégg ngeen di wax en fait loolu mooy problème mu sénégalais d'où d'ailleurs l'invitation d'aujourd'hui c'est quoi le problème bu weesoo peeling ak ak est-ce que comme yéen a ngi liggéey ci wàllum commerce comme ni kuréelu euh, wala chambre commerce yi yëpp amee ay association gis nañ jaaykatu yére yi am nañ association jaaykatu dàll yi yéen jaaykatu xeesal yi à ma la là est-ce que di ngeen gaaw am association. est-ce que su ma la waxee Ndeya sama xarit la di duñ ko gëm. Hmm. sama xarit la daa ñu tëddante te tëdduñu te déggante wuñu sama portable boo ko tàppee woon ay vocal ñu nangul la. Hmm. kon daal yow ñàkk nangul bi rek moo la naxaree. Hmm. moo mën a kare. Hmm. est-ce que yéen a ngi euh, sóoraale la santé de la peau des femmes que vous vendez euh, seen xeesal bi. waaw ñoom ni ñoo xam ni ñuy diwoo rek te xam ni ñuy limité. Hmm. parce que diw man dama duma leen conseil chaque jour ñuy xeesal. Hmm. parce que man damay diw ba mel ni tubaab. nga pose damay pose sama po ba sama po nooy waat mais xeesal xam nga lan la bañ nga jàpp sa peau bi.